ginnaaw bi ñu leen nuyu tënkum xibaar yi ñu doore ko ak bureau assemblée nationale bi nga xam ne ne neenal proposition de loi bi nga xam ne dañu koo na juróom benn euh, disposition yoo xam ne ne mi nga woon ci proposition boo de loi boobee loolee dafa fekk mu nekk ci li nga xam ne ne mooy code pénal bi lu ci mënti am imam Makhtar Ndiaye moom nee ak mbetteel la ci am waaye du tax euh, ñu bàyyi dina tax rek euh, ñu wuti yeneeni pexe yoo xam ne ne lii ñu bëgg dees koy lay am Jomar. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2021 la ay kuréel yu nekk ca société civile ak ay kilifa diine ànd ci ak député di liggéey rek ngir yóbbu ca bureau assamble nationale proposition loi boo xam ne dafay gën di teg ay daan yu métti métti ci ñi nekk ci mbirum góor jigéen waaye seen yéene boobu mujjul antu ndax bureau assemblée nationale da ko dàq Abdou Mbow vice président la ci assemblée nationale. lii ñuy wax ñoom te am six points nekkul loo xamante ni lu bees la ci code pénal sénégalais waaye ay commentaire la maanaam wax li nga xamante ne nii moom mooy faram-fàcce la nekk déjà ci article booba nga xam ne mi ngi ci loi bi nga xamante ni moo nekk ci biir cote pénal bu sénégalais président de la république bu Sénégal wax na ci ay kanamu njiitu réew yu bari wax ne moom tànk mi ngi nekk président à Sénégal kenn du dépénaliser lii ñuy woowee homosexualité ba pare kenn du ko fi dëggal maanaam légaliser ko looloo tax ñu déclaré ko irrecevable kilifa diine yooyu bokk na ci imam Maktar Ndiaye yi nee na mbetteel la ñu am waaye war nañu amalaat yeneen doxalin dañu am benn sentiment regret ak indignation en tant que religieux et ci proposition de loi bi nga xam ne def nañ ko pour criminaliser homosexualité bi nga xam ne assemblée nationale tey dafa déclaré irrecevable nanguwu ko def ko rejeté euh, waaye tamit du tax tamit wax dëgg yàlla religieux yi bàyyi daanu jéem a trouver yeneen stratégie yoo xam ni dina tax ba li nga xam ni mooy mbir mi nga xam ne mooy wàllu homosexualité wax dëgg yàlla kenn du ko mos a yoonal di ko fii ci réew wax dëgg un pas de géant def nañ ko tey tey les religieux dem ba jël audace su déposer une proposition de loi fee ci assemblée nationale boo xam ne sax l'islam ci boppam moo ko njëkk def crime contre yi nga xamante ca société civile la nekk ak ay kilifa diine ñu amoon yéene ngir fexe rek mbirum ngor jigéen ñu yokk ci ay daan yu métti métti boo xam ne mën nañ ko jëlee ci juróomi at dem ba fukki at. jo maron lu ci mënti am Abdoul Mbow moom xas na yooyu les députés xas yu métti ci la ko jaarale pauvre député yi nga xam ne ne ñooy jéem a wala di commenter lépp li nga xam ne ne mooy proposition de loi euh, boo xam ne ne lépp position seen position daal ñëpp xam nañ ko te mi ngi joge ci ki nga xam ne ne mooy njiitum réew mi nee daal ak mbetteel la ca am euh, Mor Sow di officier état civil nekk ca mairie bu Mbàkke ak ñamu àndal ñoom ñoo ñëwee suba ci alxamis bi dinañ leen euh, nañ taxaw ci kanamu procureur bu tribunal grande instance bu Diourbel loolee gannaaw ba ñu dàqee audience bu njëkk ba euh, ñoom ñooñee nag euh, jamono ji ñi nga caw garda wi balaa ñoo jàkkaarloo ki nga xam ne ne mooy procureur de la euh, procureur bu tribunal grande instance bu Diourbel jeexale tënkoom xibaar yeeg Fatick ak lycée Coumba Ndoffène nga xam ne ne fukki fan ak ñeent ci weerum décembre bee ñu génn ba tey daal daanaka la dox bariwul ndax élèves ya nga ne jamono ji ñu ngay xupp ne ne ay bés yi ñëw bu ñu moyul dinañ amal doxaw ñaxtu la ñuy ñaawlu nag mooy anam yi nga xam ne ne ña ngi koy jàngee loolee bokk na ca barab ba ñuy jàngee maanaam bâtiment yi jàpp leen ne màgget na màgget goo xam ne ba jaaxal na leen li nga xam ne mooy seen infirmerie ba nag moom dafa sax doxut ak loo xam ne ne gën na tax mbir mi gën tar mooy grève bi nga xam ne ne waa CUSEMS su sumb nañ ko muy ñi nga xam ne ne ñooy jàngalekat yi geneenu grève boo xam ne ne ñetti fan la agent de sécurité de proximité yi nga xam ne ne ñoo nekk ca Linguère ñoom ñoo ko sumb tey jii lañ ko door sax lañuy laaj nag mooy ñu renouveler li nga xam ne ne mooy seeni contrat nga xam ne ne jeex na ci 31 décembre 2021 euh, bi ak tamit condition yu baax ci seenu lëg yi